Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki juliti mbokki talibe yi. ci ndigalul serigne muntakha mbake khalifa general des mourid yalna fi yag lol tande ku wer ci ndigalul Cheikh mohammed al bashir antagnang khalifa mam cherno Ibrahim borom darul moti ci ndigalul Serigne Khadim docteur khalifa Serigne Modou Aw Balla ci ndigalul Serigne Fallou kan khalifa Serigne Modou kan Touba kan bu ngeen gisee jotaay bobu xamni bis bu reuy ak setina bis bi nga xamni mom la wa Touba cour ak jor di def at mu jot bu nu tabaske rek ba bis ba delu ci diko defal Serigne mohammedou Awa Balla ibnu Maam tierno ibrahim di bis bi nga xamni mom la Serigne Modou Awa Balla ñëwoon ci Touba cour ak jor ni len dekk len wër kaddu gi lepp lu ngeen bëgg fi la leni fekk lepp ñewna ndax olof neena kula joxum ndox bu la diggé lenen nga wan ko gëm kon nak mbokk yi bis ba ñu taxawal jotaay bi fas yéene nag woote ngir jëm ci bis bobu nga xamni ni moom la ñuy defal jàmbaari sëñ Bamba jooju jambaari mam Thierno ibrahim ji sëriñ Mouhamadou aw Balla kon dañuy jox kaddu gi jëwriñ elage mbaw mu wote ci mbollem comité d'organisation yi ci tour assalamu alaykum mbokki julé di mbokki talibé yi mbokki dëkkandoo yi bu gën gisé bis bi tay ñu tok fi ñëpp xam lu seen xel ci bisub cant gi ñu def ci ak bu ñu tabaské bu bisub ci cant googu nag li tax ñu koy def at mu nekk ñu wax ko waaye du te Moussa dina ci ñëwaat gën leen koo leeral kon daal cant gi e, ñëw na wàccaay wi ñoo ci wàccaay wi di woo mboolem e, juróom-ñaari village yi di woo waa dëkk bi yëpp di soññaat jigéen ñi góor ñi di soññ guney dëkk bi ak njabootu dëkk bi yëpp ñu jóg taxaw ci bis bi te waajal bis bi te xam ne bis bi ñëw na ku woote bis nag ay mbooloo moo ñëwal mbooloo ne ku ñuy ñëwal nga war a saytu bu baax fa nga nekk ak fa dëkk dëkk ba ak mboolem la war dëkk ba war a taxawit euh, waajal gan ñi ak fi nga dalal gan ñi kon ñoo ngi woo ñëpp di di di leen ñaan ñu waajal ko te euh, ma wàcc seen la jox gan ñi ñu ñu dugg te dalal gan ñi tatagal leen defal leen képp ku fi teewit yal na nga yal na nga barkeel ci barkeel sëñ sëñ Modou yàlla jàppale leen defal lu xéewal ba lépp luñ ci séentu noonu ko ci barke sëñ Modou Balla jërë ngeen jëf. yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare di ñaan suñu borom. Euh, ñoo leen di nuyu te ñoo ngi leen di siyaare di ñaan suñu borom defal ñëpp jàmm ak xéwal ak sutura bu ñu toogee fii te yii nag di waxaat ci bis bi kenn ku ne xam ne ku gis image yi rek xam ni bis bi bis bu mag bis bu mag bi ñëw na bis bi nga xamante ne moom lañuy def kuréel joor di sant Sëñ Modou Awa Balla bis bi agsi na waa kuréel joor nag dañoo am taarix seen diggante ak Sëñ Modou Awa Balla moo tax ñu woote bis bii taarix ji nag mooy feeju dëkkan ca ca ginnaaw da doon lakk lakk lakk gu metti ñekk ñetti yoon ba mu lekkee ñetti yoon nag sunu maam moo yónnee woon ci Serigne Modou Awa Balla Serigne Modou Awa Balla ñëw fii lu wàcc ca lakkit ba responsabilité boobu nag Serigne Modou Awa Balla jëlan fii dafa yéeme ndax fa mu wàcceen ca lakkit ba ba mu fa ñëwee ab dóom rek fa nekkan fekk na ñëpp ci taat ñëpp toog kenn amul foo dëkk mu jógee fa ñëw fii ci cadre gi ci penc yi bi mu ñëwee am ñax rek fi nekkan ay ak ak i dëkk mu jël loxoom teg ci ne mun ko Mbàkke mun ko dëkk leen wër ko lu Sëñ Tuubaa sédd ceerno mu fekk leen fi faaf mun ko lépp leen fii fekk loolee nag nu dem ba waxtu wi nga xamante ni teg ki ci suñu bët liñ gisagul nag lan gën a gëm waaye fii mu nekk ñu ñuy wax nii li am kuré joor ku yeer mag ña jiitu woon ñu gis ko dañ naan dañ naan li ñu dëkk bi dañuy jàpp ni sax dañoo jaawale dëkk bi loolu lépp nag sëriñ Modou Awa Balla Ndayane kon noo ci woo mboolem mboolem mboolem bindeef yëpp juróom-ñett dëkk yi ñoo ngi woo ñëpp ñooy ngi woo waa Touba ñoo ngi woo waa Darou Mouhty ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwuñu kenn bis ba nag nii lay tëddee bu ñu xëyee danañ jàng alxuraan ah, jàng waa waa fukki bi waa bayti daaru motu ñoo koy jàng ah, kuré ah, daayira ma faatul bisi bu kuré joor dinañ def journée xasida fii boo xam dañ ko bu 9 heures lañ koy tàmbali ba 15 ba ba 16 heures li ñu ci jublu nag mooy 16 heures boobu mooy mooy mise en place ci ci ci tàmbalee dalal gan ñi ndax 17 heures lañ bëgg bu buñ buñ cérémonie ci jàkka ji takkusaan ñëpp ñëw cérémonie bi tàmbali 17 heures ba 20 heures mu jeex loolu lañ bëgg ren ku dégg suñu kàddu na nga xam ne cérémonie bi 17 heures lay tàmbali mise en place 16 heures bu jeex bu jeex bu jeex euh, cérémonie de sëñ Xaadim Mbàkke moo koy présider ak mboolem njabootu sëñ Modaw bala guddi ga nag sëñ Xaadim Gueye moo koy jàng baar ku ñuy Seen dana fa dana fa jàng ku ñuy wax sëñ euh, sëñ xaarim mbow coro dëkk ci dëkk bii dana fa jàng sëñ amet mbow dëkk ci dëkk bii dana fa jàng ak ak sëñ sëñ xabaan Guèye bu Thiès dana fa jàng kon noo ngi woo mboolem mbokki taalibe yi ak mbokki jullit yëpp nooy ñaan dal ku teew ci suñu borom faj sa aajo ci biir ak ci biir saay ci baatin barkeb sëñ Moura Balla barkeb sëñ Moustapha Absa mi nga xamante ni moo joxe woon digal ci bis bii yàlla yàlla yokk leeram taxam na ci barkeem moo na waxal ni taxawal leen ko def leen ko te li ma leen digal lu yàgg yàgg bu leen ci kenn mën a jëlee te ni ngeen fexe ba bu ci àdduna dugg ndax bu ci àdduna duggee day xajam te lu xajam amul njëriñ kon sëriñ Moustapha moo waxan lool loolee mu waxan nag nooy ñaan suñu borom dimbali nu may kattan ba loo waxam joojee dara bañ cee manqué kon sëriñ Abdou Aziz ñoo ngi lay siyaar bu baax baax a baax di la yóbbante ci sëriñ Xaadim na fi yàgg lool te ànd ko wér ak mboolem njabootu sëriñ Mara Balla yëpp sëriñ Bassirou Anta Niang sëriñ sëriñ Muntaxa ñëpp nañ fi yàgg wér liggéey bii ñi ko jiite di ko liggéey tàmbali ci jëwriñ mi ak mboolem ñu ko àndal yal na suñu borom dëpp kattan defar suñuy xel dimbali nu wéral nu te musal nu ba liggéey bi fi ñu ko am fi ñu am yóbbu ko fa nu yóbbu ko fa doole sëñ Mor Balla di siyaar suñu sang sii fi toog di sëñ euh, Assis jóge Daarul Muuti nekkal fi Seex doo Balla ak kii nga xam ni moom lañu tuddee bis bi waaye waajuram muy sëñ Abdou Karim Kane dëkk Touba Kane waaye bokk ci kuréel joor lépp lu kuréel joor ma a def ba mu xàmmi ko ba léegi moo cay jëkk moo cay mujj ci lu baax fa tabaarakalla borom bi tabaaraka wa taala dafa wax ni faalun li maa yurid lépp lu ñu def ci coobareem la koy def bis bii nag sunu borom tabaaraka wa taala mënu ko yónnee ci coobareem ndax euh, ndigal la loo xam ni sunu sang yii toog di musaa Mbow mii ak ab euh, Alaaji Mbow jëriñ mii ak ñi nu àndal noo bokkal dem ci suñu mu doo bàlla kër sëñ mu doo Balla ban fa demee sëñ Moussa ma nga xam ne moo nekkoon xalifa bu moom lañ fa fekk ndigal loolee ba mu leen ko joxee ba bisu tey bii wàccuñu ko loolu moo waral tey jii ñu jël bis bi euh, def thème bi ndigal kon defe naa ñaar fukki ak juróom-ñett lu ko nit def bu la jigee xam nga bu la jigul xam nga kon ndigal lii ñu ko tuddee tey jii ñaar fukki at ak juróom-ñett yi ñu koy def mosuñ cee dellu ginnaaw te at mu jot day daa xama ca des fa tabaarakàlla nag nu ñëw ci wayjur yi nga xam ne moom la ñu ko dara jaale ndax buñ ko tuddee sëñ Abdou Karim Kane dañu ko dara jaale sëñ Babacar Mbow ñu gënoon koo xam ci mbay mati caam ndax ni ñu ko xam xamee moo di wéyjuru mu jigéen moo tuddoon mati caam moo tax ñu am mbay mati caam di ko ci dàkkantale waaye Babacar Mbow la tuddoon nekkan koo xam ne dafee nekkoon ak i magam nekkan fekki rakkam waaye nekkan fi ak i wéyjur ci moom ndigal li mu demee woon Daaru Muxti itam nanu jàpp ni ndigal lu taalibe rek lool waaye du woon leneen ndax ñeneen a fi ñu maanaam ni moom waaye ci moom la yàlla dogal ak demam Daaru Muti ba mu demee tam yoon wa réussir ba mu dikkee yàlla dogal mag ñi ànd ci ak moom ba sëñ Modou Awa Balla ñëw sanc dëkk bi comme ni ko Moussa waxee loolu moo waral lii tey kon nag euh, ci turu euh, mën Njaay Mbow mi nga xam ni mooy suñu kilifa ñun ñëpp di taaw mbay mati ci am baabakar Mbow nee na mi ngi sant góor ak jigéen mag ak ndaw nee di sant mboolem koo xam ni yaa ngi sol sa dàll sol sa mbubb di yëngu ci bis bi yaakaar ne lépp lu ci waa dem moom nga koy defal ci biir loolu ba tey Alaaji Moodu Mbow mii ni ko kii waxee euh, Moussa waxee ci turu comité de saas muy magu dëkk bii nga xam ni dañ koy tàmbalee ci borom dëkk bi di imam bi teg ci imam bi Eh, astafurlah dañ ko tàmbale ci chef du village bi di borom dëkk bi teg ci imam bi teg ci mboolem waa dëkk bi alaaji Modou Mbow nee na bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen ndax ne bu limee day desal nee na sant nañ ñëpp ndax ne ba mu koy tàmbali comme ni ko Modou waxee léegi laxasaayam boobu mosu koo tikki tey ji ba mu demee ba xam ne mënul ñii di ay rakam ak i doomam àndandoon nañu ba bu fekkante ni moom ci fukk la ko bàyyoon léegi mi ngi ci junni kon nañu xam ne mbir maa ngi jëm kanam amul jëmul ginnaaw kanam la jëm kon nag alaaji muudul nee na lépp lu ci waay defan daaw fas yéene def ren lu ko ëpp yal na la yàlla may déwén leen lu ko ëpp ndax sëriñ Tuubaa moom amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am lu loo ko may benn bu déwénee di nga ko def ñaar fukk ansbilahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi julli yàlla sën ma con sant sëriñ Tuubaa sant sunu ñaari waajur sant sunu borom kër li ñaanal xewal ko seen jort te woote ci bii nag nga xam ne bis bu suñu Modou jigéen ñi sama ginnaaw ànd ak ñoom ñu nekk addi xàccandoo dóorandoo bis suñu Modou Awa bii nag dañ koy waajal kattanu yàlla ak mbaaxam di ñaan yàlla fekk tatal ko luñ ci defoon daaw lan def loolu du ko ëpp ci barke sëñ Modou Awa Balla Ndayaan di woo nag mboolem fu jigéen nekk ci àdduna góor yor kër waaye jigéen ay defar nanta ta wàcc suñuy lal génn suñuy néeg génn suñuy borom kër génn suñuy néeg génn suñuy ak suñuy roq ba dalal gan ñi yaatal leen tatagal leen te xam bi sëñ Modou kan bi kat ak du yomb ñu parne ko sama baay mbay mari ci am ay mi kon bis bi du yomb tey yàlla na yàlla la fa cat mooy na fanu gudd ak wér fekk fekkee tal ko dañuy woor ak mboolem juróom-ñaari wilaas nekk ci tund bi bàyyiwunu kenn fu ci waay nekk rek dégg sama kàddu nga xam ne woo nañ la ci bis bi ñu àndandoo ko defal ko ko daan defare dëkk bi nag amul góor amul jigéen amul mag amul na woo nañu ñëpp di ñaan yàlla fekke ko tal ko yàlla fal nu cat mosanu ci ndok ci barke Seydina Ahmed mbokk yi bu nu gisee jataay bi ñuy wootee ci sunu kaddu ci kaddu Serigne Cheikh Mbaw sunu kilifa du sunu wayjur du sunu imaam ñu koy wooteel ci mboolem ñi nga xam ne ñoom la daan bokkal njàngam alxuraan mi. njàngum alxuraan mi bàyyi Serigne Tawa Cissé moo ko daan jiite yàlla dogal na sunu boroom dogal ci moom ab dogalam yàlla na ko yàlla doole yëram waaye Serigne Modou Kara Cissé sering Cheikh kan Mbow nee na mi ngi lay ci mi ak Imam sering Abdullah hijab, nee na yéen ñaa yéen taxaw njàng mi ak sëriñ Lo ak sëriñ Cheikhouna Diop ngay ngai ngay, doomi sëriñ mod job ak sëriñ Cheikh Diop mu sëriñ Habibou job ak sëriñ Abdou Wahab gajaga, ak sering Makhtar Modou Makhtar Fall ñoo ngi leen di woo yéen ñëpp ci njàngum alxuraan mii nga xam ne moom ngeen baaxoo daan ñun sant te ko ni sant ni alquran te ko ne xamna ni kuy sant yalla sun borom subhanahu wa taala bok awé ci alquran sun borom dana ko nangu. kon nañu gëna dolé takkat la bax di wam mboolem ko xamni it da nga ci ñew ci alquran ji ak ci jangum xasida mi ñoo la ci wo bu baax ñu bok and liggéey bi jaamoo ko sun borom liggéeyal ko señ touba ta sun borom nangul nuko, ta lu ne ci jang sun borom barkel ko ko ci aduna bi yëpp defal nuko muy nek xewlu aduna gu alakhirah di fasale ci mam yi nga xamni ñom ñoom ñoo sañkan dëkk bi ba waral ñu tok ci di wote njàngum alquran mi suñu borom defal leen yermande te dëkkal leen ci barsaq Muhammad ali sallatu salaatu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jëlit yi mbokk taalibe yi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen yëkëti suñu kaddu itam ci ndigalul serigne Abdou Aziz mi tok mom serigne mohammed Balla nga xamne ne mudaw mom Balla mom domam yëpp da leen a tuddee njabootuk sëriñ gi ndax sëriñ Abdou Aziz mii toog sëriñ Abdoulahi moom sëriñ Touba la ko tudde te li ëpp ci ak njabootam noonu la leen def kon loolu day wane ak bëgg sëriñ Touba ma foog taalibeem ba des moom sëñ Mouhamadou Awa Balla ci boppam euh, sañc na ay dëkk yu bari waaye dëkk bii nag dafay ñëw am lu fi def loo xam ne ñoom ñi ko defal xam nañ ko bu baax a baax loolee nag bokk na ci lañ ko bëgg a delloo njukkal defal ko ci bis muy ak cant ndax képp kuy sant ku nekkat am na lu la defal kon nag ñoom xam nañ li leen sëriñ bi defal te dañuy wax ne coloré buñ ko dee wax ña dem taxut ñañ bàyyee tax kon ñoom xam nañ li leen sëriñ bi defal loolu moo tax ñu wutal ko bis at mu jot di ko def ci ndigalul seen ay kilifa euh, bis bi sëriñ Mouhamadou Awa Balla moom moo fi ñëwoon euh, am na lu fi daan xew ci ay jafe-jafe yoo xam ne moom ba mu fi ñëwee la loolay teggeeku mu ñaanal leen fi defal leen fi loo xam ne du fi jug bu mbukk te it ma Mouhamadou Awa Balla am na liggéey bu mu mas a liggéeyal Serigne Touba ca ndangu boo xam ne borom daaru moo ko mas a liggéeyal Serigne Touba ca ndangu yónni ko ca Serigne Touba di ko jëndaloo ay saako yu ñu def dugub ja keroog ba mu àggee Serigne Touba gërëm na Serigne Mouhamadou Awa Balla ngërëm loo xam ne euh, lam ko ca wax lu gudd gudd la waaye lay seedal ngërëm la dafa dafa am lu koy lu koy seede luy wane ne gërëm na ko muy dafa yëkkati ñaari feggu jox ko ne ko bii defal naa la ci fal ak folli bii ci des defal naa la ci jañ ak ñoddi kon nag mel na ne loolee sëriñ Mouhamadou Awa Balla def na ko ci dëkk bi moo tax ñii fi nekk di ay taalibeem di njabootam bis boobu moom la ñuy fàttaliwaat di ko woowaat kon ci ndigalu sëriñ bi sëriñ bi wax na ne fépp képp koo xam ne da bokk ci njabootu borom daaru moxti rawatina nga bokk ci njabootu sëriñ Mouhamadou Awa Balla na nga xam ne bis bii na sëriñ bi jàppe bisub sëriñ Mouhamadou Awa Balla noonu la jàppe bis ndax ñi fi nekk ñëpp ak ay taalibeem lañ ak njabootam lañ te benn bis bi la genn njabot gi la kon nak serigne bi neena mi ngi wo ñep goor ak bayi wut kenn na nak daayira yi kep ko xamne da nga yor ab daayira wala nga jita mbolo wala nga bok ci njabootu sëriñ Mouhamadou Balla rek serigne bi neena nga xamne bis bi kat bisub serigne Mouhamadou Awa Balla la mi ngi lay wo nga ñew tew ci fasiyene ko and ak njabot gi nga xamne ñoy njabotu njabootu ci kilifteefuk alhaji Modou Mbaw mi nga xamne moy kilifa gi ànd koog euh, serigne Moussa Mbaw mi ak serigne alaaji Mbaw ci ñi nga xam ne ñoom la waa dëkk bi jiital ñu nekk jëwri ñi di ci taxaw taxawaay bu am solo waaye di beral am nuyu ak cant itam sëriñ Abdou Karim mi nga xam ne euh, waajuram moom lañ tuddee bis bi muy sëñ Modou kan mu amoon ak kóllëre wu yàgg digganteem ak sëriñ Mahamadou xaw Balla kon nag lii lu rafet rafet la kon nag ñi ngi yemale foofu suñu kàddu di woo ñëpp rek di euh, sàkku ñëpp ci seen teewaay ci bis bi te képp ku fi ñëw nga faj fi fas seen fee faj saajo ndax bis yi kat la sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Mahamadou xaw Balla daan wax rek dafa daan wax ne ñu bari dañuy jàmbat naan bisi yi dañoo bari màggal yi ak cant yi waaye màggal yi ak cant yi li bari bari nañ xam ne carte gi ko ak football bi ak càcc gi ak ak warante bi ak naxante gi te it nee na bis yi nga xam ne ñu ngi koy defal Serigne Touba saa bu murid yi dajee lu mu gàtt gàtt danañ fa jàngal xuraan danañ fa jàng xasida danañ fa tudd yàlla danañ fa julli ci yonante bi danañ fa jokk ak mbokk danañ joxe ay ñam te lenn luñ ci defoon mu doy sëkk ndax lu ci na yàllaa ko digle kon nag bis yi yaakaar am solo la ndax mbokk yi dañ ciy daje ndax kat jafé na rawati na jamono ji ñu nek kon nak bis yi nga xamné ay bis Serigne Touba la dañ ci yéssalat mbokk gi di ci yéssalat couleur gi di ci yéssalat pass pass bi ak diina ji ndax légui li nga xamné wax nañ ko fi rek eh, ne danañ ko fi wota ci ay daara yo xamné dañ fi jang alcorane lolou rek jaron na wota bis bi kon nak ñi ngi sant ñëpp di sakku ñëpp ñu ñew tew ci ndigalu serigne bi serigne bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar baax baax baax di jéglu kaddu gi ñi wax ni borom Eh, asaka lu mu bari bari waxtu bu gisee borom jaag ba war na war naa na bu kàttanam te lu naam rek Sëñ Tuubaa ko may kon noo ngi koy sant di yeesalaat di ko sant sant bu baax a baax. dañ fi ñëw tey jii nan fa daan ñëwee ndax néegu nu bañ tuddee bis bi sëñ Modou Kane ci doo ko bokk bañ ko sosee ba tey dañu cee boole jox na cër te dañuy wax ne albiru laa yëpp la arabe dañ ne tiranga lu baax du lu mu yàgg-yàgg du ràpp kon nag ñu ngi sant ñëpp di ñëw fii ci turu sëñ Fallou Kane mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Modou kan ak sëñ Cheikh naa mi nga xam ne nii tey mooy jëwriñu Touba Kane di taawu sëñ Modou Kane alaaji Modou Kane mi jëkk wut sëñ Modou Kane ngir woo mboolem taalibe yi nga xam ne yëpp ñoo yaakaar Touba Kane fu ñu fi mën a ne seenu wér ak seenu jot may leen ko bu ñu tabaskee bis ba delsi ñu ngi sàkku ji quatre fekk leen fii sëñ bi boole na ma ak doomam sëñ Ibra Kane té nga xëy moy coordinateur wu fédération seigne Modou kan ak seigne Papa gay mi cent wet nga xëy moy président section seigne Modou kan bi nga xam mo moo ne ci Kajoor bol gep lool lepp day wone rek niko bis bi ñoré ndax waxna ni tuddé yag nañ ko tuddé bis ci kenn dégg ko waye bis benn tool ndax luñu mom la seigne Modou Awa côté ki loxo seigne Modou kan dina ko jàpp ak fukki loxo loolu motax bis bi yëmale ko ben bis mi ngi ñaan taalibe yi daal lu ñu mën nañ ko ci def ku ma nit na ñëw bëgg nañ daal bu nu fi jógee ñu ni kii ñu ko tudd mësuñu ko tudd ku ni mel. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ah, bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi xarit yi ak collègue yëpp ñoo ngi leen di nuyu ci turu Serigne Khadim moom Cheikh Mamadou Awa Balla ak njabootu Cheikh Mamadou Awa Balla gépp ci turu kilifaam Cheikh Mamadou Bachir moom maam Thierno Ibrahima Mbacké ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha moom nga xam ne moo fi nekkal Serigne tubaa ndax yoon yi luñ fi yëngatu lu mu mën doon ci ndigalam rek ci lay wéy luñ fi mën di nekkit bu ne woon bàyyi leen ko nu bàyyi leen ko kon nag ci turum la ñuy def lépp seen xaadim yabaloon ma fi nag ne ma naa ñëw teew fi ma ànd ak Modou njaay mi sëñ Modou Ndiaye ki maam ak lenn ci bokki taalibe yi ñëw teewal fi njaboot gi yëpp di leen fàttali libis bi nag. fàttaliwu leen ko fàttewu leen ko sax waaye ñu leen koy fàttali bëgg itam njaboot gi yëpp teew ci ak taalib yëpp ku ko mën na nga ñëw tax bis bi bisu sëñ Modou Awa Balla waaye nag dañ koo tuddee sëñ Modou Kane sëriñ Abdou Kane sëriñ Abdou Karim mi wax na ko léegi waaw ah, kon nag day ñaari sëriñ Modou yu daje te sëriñ Abdou Karim wax na fi léegi loo xam ne lii ci ak kóllëre ak lu dox diggante seen diggante kon bu demee ba yàlla dogal euh, ñu daje ñu tuddee ko loolu kon ak cant la noo ngi ñaan noo ngi woo ñëpp daal ñu ñëw noo ngi ñaan tam yàlla subhaanahu wa taala yàlla yóbbu na ci ci jàmm ñu ah, def ko ci jàmm te ñibbiwaat ci jàmm te luñ fi def ci ay ñaan moo xam alxuraan la moo xam zikrullahi la moo xam xaside sëñ Tuubaa la luñ ci doon rek yàlla na ko yàlla nangu te uh, sotti ko ci kaw ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo bis bi ak ñin ñu fi des ñëpp itam yàlla boo leen bàyyi nu fi te may nu wér yàggal fi suñu kilifa yi yëpp itam yàlla na ko yàlla nangu ci barkeb Serigne tubaa kon sëriñ bi ñoo ngi lay sant bu baax sëriñ Abdou waaw ah, yàlla na nangu ñaan yëpp waaw ah, ci turu Serigne Khadim ak njabootu Serigne Modou Ball gépp kon nag ñu ngi fàttali ñeen ñëpp daal bis baa ngoog kon nag yàlla nu ci yàlla yóbbu. te na àgg ci jàmm te weesu ko te luñ fa def yàlla nangu ko ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa kon mbokk yi bis baa ngi noonu ci ndigalul Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides yàlla na fi yàgg lool tànd ku wér ci ndigalul Cheikh Mouhamadal Bachir Anta Niang xalifa maam Thierno Birahim borom Daarul Mooti ci ndigalu Serigne Khadim docteur xalifa Serigne Modou Aw Balla ci ndigalu Serigne Fallou Kane xalifa Serigne Modou Kane Touba Kane baa ngi noonu ñu ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn fen ak ñenn di ci woo son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye fay ak premier ministre am Sonko di ci woo euh, préfet Mamadou Gueye préfet départemental bu Tivaouane di ci woo sous-préfet bu Mérina Dakar Pape Massaer Diop di ci woo Alaaji Modou maire de la commune de Mérina Dakar di ci woo monsieur ay euh, maire de la commune di ci woo El Hadji maire de la commune de Koul di ci woo El Hadji Aymirou Gningue maire Mérina Dakar di ci woo Moustapha Sylla maire Niakhène di ci woo Cheikh Ibrahima Ndiaye Lamp maire Thilmakha Mbakol di ci woo Alaaji Ndiaw Thiam maire Euh, Pekes di ci woo ki nga xam ni moo di Maguette Wade di meeru ngay Mexe di ci woo Cheikh Sall meeru Mewane ak mboolem maire yi nekk ci département bu Tivaouane mboolem maire yi nekk ci Sénégal di ci woo sunu dëkkandoo yi juróom-ñetti dëkk yi nu wër yëpp Kuur ak Deg Joor gàtteñ tëgg gàtteñ géer njaxate ñese njaga ak ñese momar ñuy woo ñëpp bàyyiwunu kenn di ci woo waa ngaay ak li waaye di ci woo imaam yi sëriñi daara yi ak mboolem ëttu këru diine yi li ko tàmbalee ci kër Cheikh mu al ba ci kër Cheikh Modou Moutada kër Serigne Modaw Balla ba ci kër sëriñ Khalid ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwunu kenn mboolem commune u Koulit ñoo ngi woo ñëpp bàyyiwunu kenn tey sàkku seenub teewaay bés bi nag mi bu nu tabaskee ba bis ba dellu si la yamook juróom-ñetti fan ginnaaw bu nu tabaskee fii ci Touba Kurek Dior ñu ci woo ñëpp bàyyiwunu kenn Kurek Dior nag mi ngi nekk boo génnee ngaay rek ñaari kilomètre ci yoonu pekkees wi yoon wi jëm daarul mooti foofu la Kurek Dior nekk di dëkkub Serigne Mamadou Balla waa Touba Kurek Dior di leen ci woote sàkku seenu taay tey ñaan kull ku teew ci bis bi yàlla na nga dëppoo ngërëmal Sëñ Bamba